anniversaire bi day dem salon salon lañ jëm what's good my homie <laughs> you good oh <laughs> hey girls xale baa ngay defal ay nails am she about to do her nails that's her birthday waaye xale màgg na waaye ci yàlla dafa bëgg nga ay takkaay de nga mel ni nii mbay jaaji dem ba ma dee rek ngaay ma béy bintaan jaag ak mbëri te ma di fàtte ko mbaay man naa yóbboom ca ndeer defal ko yu gàtt de bu ko defal yu gudd mbay mbasu ndeysaan anniversaire borom anniversaire bi daa ñëw salon bëgg nga xew ba mel ni lawbe oh.